woyu moom isnataani ñaar la aw arbaa yi di ñeenti wa sittuuna ak juróom benn fukk aayatun ci aaya ah bismillahi sos na ah, ma na ma wax ci turi buur arrahmaani buur bay aji yaram mboolem bi ndaa rahmi kay aji yaram mboolem julli ànd ak ci àllaaxira de ah de aw saar la àndal naa wàccee nañ ko farat naa faratal nañ wa àndal naa wàccee moom ayatin ay kaawteem bayyinaat yi aji biir de laallakum ndaxte yéen tazakkaruna ngeen waaru ba ragal yàlla de yàlla nag wax na ci saar wi saar wi ni mu tàmbalee amul benn saar boo xam tàmbalee na noonu yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ni ngeen dëkkaloo seeni jigéen bu leen dëkkaloo seeni jigéen ci kaw étage bu leen dëkkaloo foofu te bu bu ngeen leen xamal tamit bind waaye na ngeen xamal létt ak saaru nuur na leen ko jàngal ndax buñ ko jàngee xam ko loolu mën nañ cee jëlee ak fegu moo tax mu ne aw saar la xam ne yàlla moo ko wàccee farataal ko de ndax yéen ngeen waaru ba mën a ragal yàlla de azzaaniyatu aji njaalu ji jigéen wazaani ak aji njaalo ji góor ah fajlidu cawleen leen kulla waahidin képp kenn minhumaa ci ñoom ñaar mi ate jaddatin téeméeri derde mooy téeméeri yarde yàlla nag nee na képp koo xam ne njaalokat la njaalokat bu jigéen wala njaalokat bu góor mi ne nañ leen dóor nañ leen jam ñu ne nañ leen dóor téeméer yar su fekkee nag dañoo sengewu boobaa dañ leen jam doj bañ dee Seydina Omar radiallahu anhu wax na ne ragal naa moos jamono yàgg ba am ay nit ñi taxaw wax ne laayee jam ñëwul ci téere yàlla ba tuutee bu ma ragalu toon kon ci mu bi dinaa ci bind de te laaye jam du ñëw la de asheexu wa sheexatu ah ida zaneya farjimuhuma albattata ku ku sengewu ku góor ak ku sengewu ku jigéen buñ njaalooyee nañ leen jami doj bañ mi ne kon njam ñëw na ci téeréb yàlla bi njam ñëw na ci téeréb yàlla bi lu sax la ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njam na Aboubacar man mi jam naa de leen wax mukk njam ñëwul ci téereb yàlla bi a fajidu kulla waxidin minhuma miata jallatin moom moo ñëw ci téere bi waaye laaye jam ji ñëwoon na mooy alcheikhu wa cheikhatu in albattata buñ njaaloo jam aaya bi ñëwoon na ci alxuraan waaye dañoo folli aaya bi bàyyi ci atte bi kon njam ñëw na de kon képp koo xam ne njaalo na fekk mi ngi sengewu mooy mi ngi am jëkkër ba pare njaalo kooku dañ koo war a jëm doj ba mu dee fekkee dafa am jabar kooku tamit dañ koo war a jëm doj ba dee su fekkee ne nag dafa njaalo fekk sengawul amul jëkkër amul jabar kooku dañ koy dañ leen dóor bu nekk téeméeri yar de wala taaxuduku mu leen jàpp leen bii maa ci ñoom ñaar ah bii maa ci ñoom raxfatun ak yërmaande fii diini laay diina yàlla ji de bu ma leen yërëm nag ba tax ñàkk leen jam ndax yàlla moo leen gën a yërëm moom moo teg atte bi kuntum dem nekk ngeen tuuminoo di gëm billaay ci yàlla wal yawmi ak dikk ak dikk ak bés bay ak mujj de écho bi bu ñu ko mënoon wàññi tuuti mm-hmm. kon mm-hmm. Euh, su fekkee ne gëm ngeen yàlla de kon ku ku ku njaaloo loolu lañ ko war a de wala yashhad na mu seede azaabuhuma ak gëtan seen ñoom ñaar taifatun kuréel mi ne mu ni ci way gëm ña ku njaalo nag buñ koy atte buñ koy gëtan dañuy dañ dañuy indi ñett wala ñeenti nit la ñuy indi ñu seede ko ñu soog leen a jam bañ dee wala ñu dóor leen téeméeri at su fekkee nag bàyyi wax na fii nag su fekkee nag fii la comme réewum Sénégal mi nga xam ne attewuñu ñoom attewul islam te nit ki bu jaaloo ba pare ci buurab jullit ndax su fekkoon dañ doon attewul islam ku sàcc dañoo war a dagg sa loxo boo sàccaatee ñu dagg sa beneen loxo waaye loolu yëpp gis nañ ne amul koo xam ne mën na koo dem mu dem ci benn buur mu àtte ko kon lu muy def kooku daganut mu rey boppam ndax wax naa rek te naa kon xaaral ma dem rey sama bopp mu rey boppam àtte bi sharia àtte tegoon ci kawam dafay rot dafay rot ndax amul ku ko àtte boobaa lu muy def mooy na tuub rek dellu ci yàlla dem mbir mi mu nekk diggante ma boromam na tuub rek dellu ci de mbir mi des diggante moom boromam de su fekkee nag réew yi nga xam ne nag dañuy àtte ñoom dañuy àtte woo shariatu dañuy àtte woo dañuy àtte woo lislaam àtte lislaam moo fa ne ku sàcc bu góor ku sàcc rek fekkee da ngaa sàcc leneen sa loxo ndeyjoor boo sa loxo càmmooñ noonu lañ koy def boo sàccaatee ñu dagg benn tànk ba boo tànk ñu daggaat beneen tànk ba de boo njaaloo su fekkee da ngaa sengew dañ lay jam doj ba nga dee su fekkee ne nag ba ngay njaaloo sengewoo fokkul nga am jëkkër fekkul nga am jabar boobaa dañ lay dóor yar de yàlla nag gis nga ci njaalo azaniyatu la wax teg ci wa zani jiital na góor jigéen teg góor ca sàcc moom dafa jiital góor teg jigéen ne wassaariqu wassaariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen ci njaalo mu jiital jigéen teg góor ndax njaalo jigéen moo ci ëpp doole bépp jigéen bu njaalo rek moom la neex waaye góor gu njaaloo jigéen rek jigéen ji la neex ndaxte jigéen moo ëpp doole ci njaalo jigéen ju ndaw boo bëggoon a moom bu la tàccoo ay loxoom rek nga daw de waaye sàcc yi tamit góor moo ci ëpp doole ndax góor moo gën a mën a sàcc ci góor moo gën a mën a sàcc ci jigéen moo ta yàlla ci sàcc jigéen euh, góor la jiital ci njaaloo mu jiital jigéen de azani aji njaalo ji jigéen a ah, azani a ah, azani aji njaalo ji góor laa yen ke u déefut denc ko illa zaniyatan dara aji njaalo ji jigéen de ah ah ah aw mushrikatan iki iki yéefee iki mushrik yàlla wax na ne koo xam ne dafay njaalo wërta takk benn jabar lu jabar juy njaalo rek de njaalo kat bu góor daal jabar juy njaalo rek la war am de wala mu takk sax yéefee wa zaniyatu aji njaalo ji jigéen laa yanki waa déewut du takkuloo ko illa ndere aji njaalo ji góor aw musirkin ki kii e yéeféer koo xam ne nag njaalokat bu bu bu bu jigéen la moom itam waruñ koo may ludut njaalokat bu góor nit moom de wala sax ñu may ko yéeféer de wa xurrima xaraamal na daalika loolu bu takk ak njaalo alal mu'miniina ci way gëm ña de ñi nga xam ne nag dañoo gëm yàlla ñoom duñ leen waruñoo takk koo xam ne dafay njaaloo bu jigéen koo xam ne dafay njaaloo de waruñ ko koo may de li nag wàcc na bi nga xamee ne ñi ñàkk way ñàkk jullit ñi bañ gàddaaye ñëw <clears throat> ay jigéen ñi nga xam ne jigéen ñi lañu woon ñi leen dem di takk pour lan pour am pour ñu mën leen dundal yàlla nag xaraamal leen ko de ne wa xurrima zalika alal muminina ñi gëm yàlla nag ñoom yàlla xaraamal na ci ñoom ñooñu te laay ji laay ji ñëw na ko wa ankihul ayaama minkum dana ko folli de walladina ñi nga xam ne yarmuna dañuy sànni al muhsanaati woy fegu ña ci njaaloo zumma lam yaatu topp dikkun bi arbaati shuhadaa ci ñeenti seede fa fajiduum a cawle neen samaani jaldatan juróom-ñett fukki yar wala taqbalu deful nangu lawum ñeel ne shahadatan ak seede abadan deppen ulaay gi ñooñu la gaa yi ñoom alfaasiquna ñoo di way génn topp de illa alladina ne la ñi nga xam ne taabu tuub nañu min baadi dalika fa gannaaw loolu wa aslahu te ñëwenal fa inna allah naka aji baalum wa aji yaram na mu leen de ñoo ñi nga xam ne nag dañuy sànni jigéen jigéen joo xam ne dafa fegu dafa fegu nga tuumaal ko ne dafa njaaloo te indiwoo ñeenti seede ñooñu nañ leen caw juróom-ñett fukki yar moom lañ ñuy caw pour loolu ñu wax te it duñ nangooti seen seede mukk te it yàlla wax na ne ci fasiq yi lañ bokk ne ci naafiq yi lañ bokk seet ji moom fan lay dellu ndax ci jam gi lay dellu jam gi moom mënta ci ci ci caw bi lay dellu caw gi moom mënta ñàkk foog ñu dóor leen juróom-ñett fukki yar waaye nag buñ tuubaatee buñ tuubee nag tuub gu sell yàlla dañ leen jéggal ca naafeq yam leen boole woon dañ leen ci génne de kon nag njaaloo kenn du ko seede lu dul ci ñeent yi rek mooy am ñeent yi rek mooy am ñi soog a saxal njaaloo góor ak jigéen di sëy ñeenti nit ñeenti góor jugee ko ci barab yoo xam ne bokkuñ kii jugee ndeyjoor kii jugee càmmoñ kii jugee ci kanam kii jugee ko ci gannaaw ku nekk rek walla ba nga koñ ba nga jugee ak sa morom koñ buñ jugee bokkuñ te yëgante wu leen ngeen ñëw fekk jigéen ak góor tëdd di sëy ñi gël ba ñi gis bantab tësngal bi na muy duggee ci biir tësngal ba ñoom ñeenti ñëpp ñi gisandoo ko loolu fekk amul kenn warta seede ne njaalo de loolu nag ku ko defa nga seede ne njaalo la kooku noonu wax loolu dañ ko war a dóor juróom-ñetti fukki yar moo tax bàyyi mu ne njaalu du am mukk de ndax benn jigéen nanguwul sax kenn gis ko waxuma laa ñaar bay ñeent di ko gis benn jigéen nanguwul loolu de xewoon na ci jamono Omar ibnu Xattaab ñi xas Mugayrata ibnu Shobati saxaaba yonent nga xam ne mooy borom xadiya yowmul yowmul Hudaybiya nga dina ñëw incha allah moom nag dañ koo xasoon ne dafa njaalo ñi ñëw wax ko Omar ne ko Mughirata ibnu Shu'bati fekk nañ ko muy njaaloog as jigéen ah seede ku njëkki Omar daal mbir mi tag ci moom lool ndax am na ne kii Mughirata mi yonent bi sallallahu alayhi génn na àddina te mi ko gërëm te ñu ko sànni ne dafa njaaloo te mënta ñàkk bu seede yi matee rek dañ koy jam doj ba dee Omar daal loolu daal tiis na ci moom mu oo seede bu njëkk bi ne ko kaay seede bu njëkk bi ñëw seede ne gis naa ko muy njaalo gis naa gis naa pëyam ba dugg ci pëy ndaw si jigéen si gis naa ko ñaareeli seede bi ñëw wax loolu ñetteeli seede bi ñëw wax loolu ñeenteeli seede bi moo ci des moom bu seedee rek dañ ko jam doj ba mu dee Omar ne ko ragalal yàlla ittaqillaa ittaqillaa wala taqul illa alxaq bul wax lu yàlla na nga bul wax lu dul dëgg kii góor gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dee na te fekk mi lu dul gis la nga xam de ko waaw mu seede na man gis naa leen ñi simmeeku ñoom ñaar def yaramu neen ma gis jigéen ji jaaxaan moom mu mu ñëw tëdd ci kawam ma gis leen ma gis tànk jigéen yi yëkkati ko ci kaw ma dégg yëngatu bu dëgër lii rek laa gis waaye gisuma seen xawra yi seen ñaari xawra yi duggante loolu gisuma ko Omar bi yàq ñetti seede yi na ah kon affaire bi Oh, oh, oh kon yéen seen gisoo leen dara gisoo leen dara def diiram dundam na fu mu dajeeg ñoom ne kaay leen ngeen tuub ci la ngeen waxoon ah, ah, ma bo ak ngeen génn ci naafeq yi waleen yi ngeen boole ñu ne ko luñ wax bu dañ de ñun ñoo ko gis ak bàyyi nag radiyallahu anhu wax na fii ne amaan na seede boobu seede baatin la Omar Omar atte boobu kon mu atte atte baatin la wala nga xam ne xam ne ne góor gi góor gu texe la loolu moo tax du ko jam mukk mu dee kon ate bi atte ba dina am na sew-sew bu ci nekk woo xam ne yéen mu ne waxoon na mun koo dégg de dégg ngeen walladina ña nga xam ne yar mu na ay jabar seen ci njaaloo wala mu yëkkunte nekku shuhada way seede illa anfusum ndere bopp ndere bopp seen fa shahadatu eh, eh, seede kenn ci ñoom arbaun shahaadaati ñeenti seede la de yàlla wax na ne laay dina ba wàccee Aasim ibnu Abdi bokk ci ansaar dafa ñëw ci yonent bi ah, gis na lool na lool su fekkee ne ñun kenn ci ñun dem na fekk jabaram beneen góoram koy sëy nga génn di uti seede fekk boor gi faj na aajoom ba dem te boo ko waxee ñu dóor la juróom-ñetti fukki yar te boo ko noppee noppee xol bu métti ah li métti na mu ñuy def yonent bi ne ko li laay wax rek de li laay ji wax ñeenti seede rek mu dem nag ba mu demee rek ba mu demee Uwaymir Uwaymir al Ajlaani ñëw ci moom ci Aasim ne ko fekk naa Chérif ibnu Sahmaan mu tëdd sama kaw jabar di ko sëy gis naa ko mu dellu rek dem ci yonent bi ne subhanallah li ma doon laajte léegi de yàlla gaaw na ma gaaw na toog xew na ci sama kër gi mu Sahma ñëw na léegi wax ma ne ma nga eh, ak ooy min ñëw na léegi na fekk na Cheikh Ibnu Sahma ci kaw jabaram mu koy sëy mu koy sëy yonent bi sallallahu alayhi dem neen ool ma ah, dem neen ngeen ool ma ak jabaram xawlatu yëpp ngeen oo ko mu ñëw bañ ñëwee nag ci kanam yonent bi yonent bi naa ah, yow Umayr meen bul wax mukk bul sànni sa jabar loo xam ne du dëgg bu ko tuumaan mukk loo xam ne du dëgg mi ne ko wallaahi wa billaahi wa tallaahi maa ngi gën ci yàlla maa ngi gën ci yàlla ne gis naa Sharik ibnu ci kaw sama ci sama kaw jabar mu muy sëy ak moom de ah, yonent bi oo jabar ja ne ko ragale yàlla bul wax lu dul dëgg mi ne ko mi ne ko waaw ndaw si ne ko ah sama jëkkër dafa fiir rek gis na benn góor di ma xool jëm ci man xool boo xam ne xool bu gudd la mu ñaaw njort rek moo tax mu tuumaan waaye man jëfuma dara ah yonent ne leen dem leen ba yàlla ba ba ba yàlla wax ci seen mbir yàlla nag daal di wàccee laay ji di leen àttale ne wala ñi nga xam ne yar mu ay jabar seen ah yar mu ne dañuy sànni azwaajum ay jabar seen wala mu yëkkun sa nekk loolu ñeel leen soodaa seen illaa am suñu dara bopp seen ah? illaa am suñu dara bopp illaa am suñu dara bopp seen fa shahaadatu ahadim seede kenn ci ñoom arba ah, ñeenti ngañ la mu billaahi ci yàlla de innoo naka moo min as-saadiqiina aji bokk ci way dëggu ñi wal xaamisatu juróom bi an laanatullaahi naka eh, naka eh, naka soril buur bi yermaane alay yàlla nekk ci moom in kaane dem ne ci way nar ñi de waaye duru def na jàng anaa moom al adaaba mbugal de a ah, an tashaada ba mu gëñ moom ndaw si arbaa shahaadaati ñeenti ngañ billaahi ci yàlla innoo naka moom sama jëkkër la min al kaadibiina aji bokk la ci way nar wal xaamisatu juróom bi an laka ngay tey mbir xadiballaahu yàlla na mbugal yàlla aleyaa ci moom in kaan nam nekk na mina saadiqiina ci way dëgguñu de ah yàlla nag daal di wàcce atte ne dañuy dañuy ngëñ ñeenti ngëñ mooy rëbbo dañ leen taxawal góor gi taxawal jigéen gi góor gi nag dana gëñ ñeenti gëñ bu gëñee ñeenti gëñ juróomeel ba mu ne yàlla na yàlla rëbb su fekkee ne li eh, su fekkee ne li ma tuumaal sama eh, fekkee su fekkee lu ma wax bu dëgg de ah jigéen ji tamit moom itam dañ koy taxawal mu gën ñeenti ngëñ bu gënee ñeenti ngëñ ne njaaloo ma juróomeel ba mi ne su fekkee ne waxuma dëgg su fekkee sama jëkkër wax na dëgg ci li moo wax kon man eh, yàlla ma yàlla rëbb de ba loolu amee yonent bi taxawal leen oo woy mir na ko na ko seedeel mu seet ne ashhadu billahi alladi laa ilaha illa huwa la raaytu atasni daf ko ba muy ñeenti yoon ne maa ngi seede maa ngi seede ci yàlla bi nga xam ne kenn duñ kenn kenn yow jaamu lu dul moom ne gis naa sama jabar muy njaalo de wax na ko ñeenti yoon juróomi bi mu ne yàlla na yàlla rëbb su fekkee waxuma dëgg ah moom taxaw moom seedeem daal di mat bàyyi ko jigéen ji nag yonent bi oo ko ne ko kaay seede yonent bi na ko ragal yàlla yéen ñaar ñi foog am na ku ci fen am na ku ci waxu dëgg gàccaak àddina nag moo gën gàccaak àllaaxira de boo njaaloo waxal dëgg de mi mu gëñ yonent bi gëñ mi ne ko damay gëñ mu gëñ ne billaahi lazi laa ilaaha illaa maa ngi gëñ ci yàlla ne sama jëkkër euh, euh, euh, gisuma may njaalo de juróomeel ba mu ne yàlla ma yàlla rëbb su fekkee ne sama jëkkër wax na dëgg de ah loolu nag am fekk ndaw si nag ñeenti weer jëkkër ja am tam moom te ndaw si mi ngi ëmb mi ngi ëmb bi ëmbee nag ah owe mi wax yonent bi ne ko mi ngi nii dafa ëmb te man moom ëmb gi bàyyeekoo ci man ëmb gi bàyyeekoo ci man yonent wax ne yonent bi ne su fekkee doom ji judd na mu mel nangam ak nangam daneen xam ne owe mbir mii moo ko waaye su fekkee doom ji dafa juddu mel nangam ak nangam ñu xam na awal mi juru ko de shérif ñu ngi ko tuumaal moom moo ko jur danañ ñu dem ne bañ demee nag ba doom ji judd indi ko ci kanam yoonu yonent bi xool ko gis doom ji nduru lool ak kañ ko doon ji shérif man ko doon ji yonent ne billaahi ladi laa ilaaha bu taxatu na téréer yàlla bi àtt bi mu àtt seen ba pare kon maa ndaw si sama diggante moom mbir kaw ci de waaye gis nga bàyyi mu ni loolu yëpp yàlla daf koo def pour suturaal xeeti yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njaalo moom mënuñ koo séedee kenn kenn kenn lu dul foog ñeenti nit séedee ko ñeenti nit yoo xam ne bokkul bu jugee ko wuñ ci ba benn barab buñ jugee ba pare nekk gor ba pare bu ñëwee fekk góor gaa jigéen di di sëy tësngal bu góor ba di dugg ci tësngal bu jigéen ba fekk loolu amul ñoom ñeenti ñëpp gisuloo ko inna alladina nakañ buur ne walaw laa fadlullahi bu taxatoo bu taxatoo nag yéen bu a aleykum allah nag yàlla tawaabun aji nangu nu tuub hakimun aji de moo eh, li yëpp yàlla daf koo def rek ngir suturaal ngir de def na ko ngir ndax mbelaw mbelaw mbelaw njaalo nii kenn mënu koo matal de yàlla moo ko suturaal de inna alladina jaaw bil ifki usbatun minkum laa taxsibu sharran lakum bal huwa xayrun lakum aayab ifki baa ngi nii de aayab duur bañ duutaloon ndey Aysata radiyallahu anha jabul yonent bi sallallahu alayhi mi ngi nii nag koo tuumaaloon njaalo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu tukki dafay wantele ci jabaram yi ku nekk indi fett bu indee fett ba mu mu wantele bu wantelee ku sa bant ku sa fett génn rek yow lay ànd ak keroog ngeen ànd tukki ba ñuy dem nag ci xarit ba nii ah ci xarit ba nii mustala bañ cee dem yonenti wantele ba mu wantelee banta fettam ndey Aysata ba génn ñu ne ndey Aysata préparé ñu ànd ci xare ñu préparé ñu ànd ñu utal ko génn boppam dafal ko genre yooyu mel ni kees nga xam ne ci le dugal ñu ñuy dugg ci dem bañ demee nag ba ca xare ba baqara ba jeex fekk nda Aïcha bu ñu dem ñu yóbbaaloon benn caq boo xam ne ñu ko takk ci baatam caq bu rafet ba ñuy dem nag ba ñu demee nag baqara ba jeex nda Aïcha te lamb dënnam rek gis ne gisu fa caq bi mu delluwaat di seeti caq bi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ndigal ah joxe na ndigal xare bi pour ñu dellu pour ñu dellu Medina ba mu ñëwee nag gis caqam ba pare dëppaat ñoo fekk yonent bi fekk ne dem na mu delluwaat ca garab ga mu nekkoon ne xaaral ma toog fii rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ma seet bu ma seetee xam naa dana dëpp ñëw jël si ma mu nekk ci ron garab ga tëdd ba ci yàgg toog ba ci yàgg rek nalaw not ko mu daal di ba mu nalawee nag fekk Safwaan eh, eh, eh, Safwaan ibnu Muattil moom ci tànnee bi saxaaba yi la bokkoon bokk ci jàmbaar yi boo xam ne xare jeex na nga yi xare nañ ba pare ba ñëpp dem moom dafay des foofu xaar bu xaaree nag ba xool bagage yi euh, pour des boobu muy des pour ndax benn saxaaba ndax fàtte bagage wala déedéet su fekkee dañ faa fàtte bagage moom mu jëlaale bagage yëpp indi ko moo tax mu daan mujj jugee ci xare yi ba mu ñëwee nag di seet si bagage yi pour seet ndax kenn bàyyiwu fi dara mu toog rek seen kuy nalaw ci garab mu xool rek gis muy ndey Aysa mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Aïcha te nee na dégg moom ci benn baat lu dul baat bi rek laa dégg ci moom li wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah soxna yonent bi moom mooy nelaw fii aa ah, noonu nag mu dégg ngaax ak gëlëm bi mu Aïcha te daal di eewu mu xam ne jigéen bi nelaw bu jugee tamit am na nu muy jugee man man ngaa gis ay ay cëram mu am teggin dem ba sori ndey Aysatu lu soree sori ndey Aysatu daal di jug defar ay yéreem éeg ci kaw gëlëm gi ba mu xam ne ndey Aysatu fi mu ne suturaal la yaramam yëpp mu soog a ñëw nag ommat gëlëm gi di dem di di dem mu ommat gëlëm gi di dem di dem dem ba dajee xare bi ba dab yonent bi sallallahu alayhi wa ak ñoom naafeq yi ñoom bëri nañ julli ñi ci beneen boor lañ toogee bañ gisee rek ñu ne hay kii bi ñaar ñii ñan lañ ñu ne kii de Safwaan la ka ca kaw Aysatu la ñu ne ah dañ doon jaalo ci àll bi dañoo bàyyi ba ñëpp dem ñoom def ci àll bi di jaalo dañ doon jaalo de siiwal ko nag ca dëkk ba siiwal ko ca dëkk ba ñu ngeen day moom Safwaan dañoo desoon ci àll bi di ci àll ko ba mu di ko waxtaanee ndey Aysatu da doon jaalo moom Safwaan ndey ci xale moo ko jàpp ba feebar feebar na weer waa Madina ña ngay wax moom yëgul ci dara yëgul dara duñ koy tuumaal yëgul ci dara moom ndax mu ngi tëdd feebar nee na daal aw xaw naa am fakk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent ba ma xamoon bu njëkk ñëwee ci li mu amoon ci man ak yërmaane gi mu amoon ci man ak ni mu ma jubloo ak ni ma daan jubloo bu ma feebaree gis naa ne daal yoon bi daal defu ko bu xëyee rek yonent bi dafay ñëw taxaw ci buntu bi ne kay fa tiir ko seen naka la def loolu ah mu jaaxle nag mu jigi moom de yaay seta mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko damaa bëgg daal nga may ma digal ma dem sama kër baay ak sama kër yaay ba wér bu ma wéree nag ma daal di ñëwaat yonent na ko damal damal mu dem loolu yëpp nde yaay seta yëgul ci dara yëgul ci dara li ñu koy tuuma ah, ba ah, ah, ñoom nag bu njëkk kom ni waa àll bi daan def bu njëkk noonu lañ daan def amuñu woon ay cabinet ci seen kër yi buñ bëggaani génn tànk dañuy génn dem ba nga xam ne ba ci ab àll ñi toog fa génn tànk ndeyaay si dana guddi jot mu ànd ak mu ànd ak ndey mistoo di dem génn tànk bañ demee ba ci yàgg rek ndey mistoo daal di fakkastal ba mu fakkastaloo rek ne yàlla na sama doom mistoo alal ko ndeyaay si dana ko ah yow yaa bon li nga wax mistoo saxaaba yonent bu baax soosu nga xam ne ci muhaajiriin la bokkoon te bokk na ni ñi bokk na ci ñi fekkee badal nga koy wax lii mi ne ko kanaa déggoo lu mu la tuumaal mi ne ko man mi ne ko ma tuumaal mi ne nee na yow a desoon ci jeexee doon jaaw Aysa ne ko wax nañ ma loolu mi ne ko ne ko nit ñi dégg nañ ko mi ne ko waaw mi ne ko ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg na loolu mi ne ko waaw mu dellu këram di jooy di jooy di jooy di jooy di yaakaar ne sax moom ne ronkañ yi dana daggare sa wi ngir jooyu métti yi muy jooy noonu nag yonent bi sallallahu alayhi lool lool lool lool ne daal ah euh, mu mu oo Aboubacar mu oo Omar ak Ousmane ak Ali di diiseen ñoom ne waaw yéen solo si nga xam ne moom lañ moom moom ngeen dégg nit ñi di wax lu seen xalaat dëgg la wala du dëgg Omar ne ko mbir mi du dëgg fen la ay fen rek la te luy tegtal ci loolu ma wax la mooy yow yàlla teral na sa jëmm ba weñ du ko dal weñ du laal sa jëmm ndax weñ man naa laal sobe ñëw laal la loolu la yàlla di bañ moo tax weñ du du tàbbi mukk sa kaw jëmm yàlla mu soŋee mu mu mu aar sa jëmm nag ba nga xam ne weñ du ci dal ngir bu laalee sobe yàlla moom mukk du la boolee jigéen joo xam ne jigéen ju njaaloo de ñu ne Ousmane yow loo wax Ousmane ne ko mbir mi dara du ci dëgg dara du ci dëgg ay fen la te lii sama tegtal ci li ma wax mooy yow amoo takk ndeer amoo takk ndeer yàlla deful la takk ndeer ndax yàlla bu la defaloon takk ndeer takk ndeer bi mën ngaa dox moom takk ndeer bi jaar ci kaw sobe loolu lay yàlla di bañ yàlla nag mu la bañ a defal takk ndeer ngir bañ sa sobe ngir bañ sobe eh, eh, sa takk ndeer bi laal ko mu delluwaat sa jëmm loolu yàlla di ko aar di la aaral noonu yàlla moom du la booleeg jabar ju njaalu mukk jabar ju am sobe mi ne Alioune yow la wax Alioune na ko lu ñu wax du dëgg dara du ci dëgg te lii sama tegtal ci loolu ma wax la mooy benn bés dem nga ba kàbbar bay julli rek jibril wàcc jibril wàcc rek yi eh, eh, eh, sa daal yi nga sa simbi ko yàlla moomu di la sàmm di la sàmm di la sàmm bay sàmm sa dàll bu takk sobe du la nattoo mukk jigéen joo xam ne jigéen ju njaalo la de waaye moom nag daf cee dolli woon ne gannaaw nit ñi ñu koy wax rek yàlla xatalu la balay balay jox jigéen joo xam dañ koy jiiñ jaal euh, fase ko rek loolu moo taxoon day ay si te mere àll bi gërëm dundam bàyyi ne moo yee noonu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dajale muhaajiriin ak ansaar ne a ah, man de nit ñi def nañ ma lu ma métti wax nañ ci man wax ñoo xam ne ci sama ñoñ a ah, xaw ma ko ci sama ñoñ de xaw ma ko ci sama ñooñ wax wax nañ ma lu métti waaye sikk gi nag yonent bi sikk Abdullah ibn Ubay ibn Salul ndax moom moo ko sos yonent bi ne def nañ ma lu ma métti sama ñooñ lool daal lii ko ci sama ñooñ Saad ibnu Muaaz daal di taxaw wax yonent bi sallallahu alayhi wa ko yonent bi jox ma ndigal rek su fekkee ne góor bu ko wax ci aw su la bokk ci ci ci law su la bokk jox ma ndigal rek ma dog ma dog baatam bi su fekkee ne ku ko wax ci xas rek la bokk jox ma ndigal ma dog baatam ko da ñu xuloo ci kanam yonent bi sallallahu alayhi ñu xuloo ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa bi àtte leen ñu bàyyi noonu nag ba mbir mi amee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom continuer ay jooyam di jooy rek di jooy di jooy di jooy nëpp yonent bi sallallahu alayhi xaar ba guddi jot rek mu dem kër Aïcha kër kër demee onde Aysata ne ko su fekkee ne mbir mi niñ ko waxee dëgg la fekkee yaa ko def tuubal yàlla jéggala sa bakkaar su fekkee defoo ko nga seetal sa bopp ndey Aysata ne ko nekk nit daal buy jooy dafa fekk jàpput waaye bu jàppee dëgg du jooyati tiit bu ndaw rek ci lay nit di jàpp waaye tiit bu mag nit ki du jooy mukk mu ne bi ko yónent bi waxee ronkañam yi daal di fet ah mi ne yow suma bàyyi tontu ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ko man de xaw ma lu may tontu yonent bi mi ma yonent bi sallallahu na ko ah, man de xaw ma lu may tontu yonent yàlla Muhammad de mi ne ah man de ndaw laa mi ne ko mu wax ne nit ñi wax nañ ay wax sax na ci seen xol ba pare. boo leen waxee ne leen du dëgg yi mënuñ koo ñàkk gëm wala buñ ko sax foog ñu wax ne am na la ca am waaye man ndaw laa jàng bu ma alxuraan lu bëri waaye daal suma mbir mbiri yaaquba da maay wax la yaaquba waxoon ne fa sabrun wallahu mustaanun de wallahu mustaanu ala ma tasifun la yaaquba waxoon maa ngi wax de muñ naa de muñ naa muñ ko defee rek eh, eh, ba bàyyi naa suma mbir yëpp yàlla de yàlla laay ko mi ne ba may wax loolu wóor na ma ne yàlla dana wàcc setal ma te lii defuma ko te yàlla dana ma setal lii defuma ko te yàlla dana ma setal de ah, <clears throat> bi mu waxee loolu nee na muy wax ne wóoru na ko ne ko yàlla dana ko setal dafa yaakaaroon ne yonent bi sallallahu alayhi ñu wan ko ne ko Aysa mi dafa xam waaye mës yaakaar ne moom alquran dana wàcc setal ko de mu foofu rek fu ñu toog ci guddi gu bi commencé di soppeeku kon wax yi bu daan ñëw moom nu muy def ñu toog rek wax yi gi daal di wàcc de wax yi mu toog rek gis wax yi gi di wàcc wàcc ba ci yàgg rek mu toog Aysatu ne mu toog rek gis yonent bi muuñ ah ba yonent bi muuñee rek li mu njëkk wax mi ne ko Aysa santal yàlla de yàlla dañal na la nee na yow dafoo dara de Aysa daal di sant yàlla ne ko Aboubacar wa Aysa ne ko jugal nga dem gërëm yonent yàlla Muhammad mi ne ko duma gërëm yonent de yàlla laay gërëm yonent bi dégg na wax ji ñu ma koy wax te seetlu yàlla moom ma wàcc dañal ma yàlla moom ci boppam moom laay gërëm bàyyi mi ne booba aboubacar aarif billaahi la waaye booba aïcha moom majzuub la de moo tax aboubacar moom xam ne sabab li ak musabib bi xam ne ne bu yonent bi teewutoon kon yàlla du ko gaaw a dañal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teew moom Aboubacar xam na waasita na waasita boobu yonent bi teew moom moo tax yàlla gaaw wàccee wax yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu setal ko ci sax waaye bu yonent bi ñëwutoon kon ko ko kon deneen koo yéex a setal de Aboubacar nag booba aarif la xam na waasita waaye ndayaa cër booba ndaw la de booba xamul waasita de loolu moo tax de loolu nag bi mu wax jooju bi mu moom la bañ seetal ndey Aysa moom la yàlla wax ne inna alladina naka gaa yi nga xam ne jaawoo dikkee nañ bil ifki ci dut ma osbatun mboole leen minkum ci yéen mooy Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ak ak Hamnatu bintu Jaxsin ak Hassan bu ne laa tax si buufu bu leen njortu ko yéen bu leen njortu ma mu moomu charran muy xay lakum ñeen leen de bal bàyyi huwa moom xayrun yiw la lakum ñee leen de bu leen jàpp ne mam moomu ñu ji waaye yiw la di ñee leen de mooy yàlla dana biral dëgg gi yàlla nga xam ne ay julli lañ te dañ leen cee boole woon mu nekk yiw ci moom seetal nday Aysata wan ne moom moo ko sos ak naafeq ñoom ñëpp yàlla dana leen buggal de buggal leen safara de li kulli imrin aji nekk leen bépp cam minhum ci ñoom maktasabal lam fàgg min ismi min ismi ci bàkkaar wallazi waajaram xam ne tawalla mi nga woon na kibro mambuga minhum ci ñoom te mooy abdullahi ibnu ubay ibnu salul loolu ñeel na ko adaabu yàlla nag bàyyi nee na luy xikma ci yàlla yee ci lii ñi ñi sànni woon ndey Aysata mooy xikma bi mooy lii li tax ñu tuumaaloon ndey Aysata njaalo xikma bi yëpp lii la yàlla dafa fiir ci ñooñ xadaraam ñooñ péew yàlla daf cee fiir lool nga xam ne ci péew yàlla ci ñooñ péew ci ñooñ yàlla lañ bokk yàlla fiir ci ñoom te yonent bi dafa bëggoon ndey Aysata bëgg ko bëgg ko ba yàlla fiir sax ci bëgg gi yonent bi bëgg ndey Aysata yàlla daf cee fiiroon loolu moo tax ñi sànni ko duut gii ñi ko sànni na daf doon njaalo fan yooyu nag ñi sànni woon ndey Aysata ne dafa njaalo yonent bi dafa dëdd woon ndey Aysata dëdd woon ko taxoon ni boppam rek dëddu ndey Aysata yàlla fexe ne ba mu gi wàññeeku mbëggeel gëm bëggoon déyaagé da fexe na ba mu wàññeeku ba toll nag ci fi fi fi war a em ba mu emee ko ba mu em mu soog a dindi tuuma gi de loolu rek la ci jublu woon comme la daloon Yaaquba ak Yuusufa Yaaquba ba ko yàlla gisee gis ne Yuusufa mii jaral na ko lu ne dafa fexe rek mu mu mu mu jël Yuusufa rek yóbbu ko Misra ay doomam fexeel ko rek sànni ko Misra gisatu ko pour mbëggeel bi mu amoon ci Yuusufa pour mu mën a wàññeeku ndax yàlla mooy fii ci ñoom jaamam bëggul seen xol bi mbëggee rek kenn nekk ci lu dul moom rek lañ war a bëgg kon maa ngi ne loolu rek mooy xikma bi de hmm. loo teg wala laa istami'tumuuhu lu tere ba ngeen déggee ko wan na njort al mu'minuuna way gëm ñu góor ñi wal mu'minaat wal mu'minaat way way gëm ñu jigéen ñi bi anfusihim ci bopp seen xayran yiw lu tere ba ngeen ko déggee yéen jullit ñu góor ñu jigéen ñi ngeen njortu seen bépp ngeen njortu seen bopp yiw de ngeen def la ummu ayuba defoon ak abu ayuba lañ defoon ngeen def loolu tere dafa waleen loolu ummu ayuba bañ jiñee ndeyaay seen luñ ko jin dafa dem ci jëkkëram abu ayuba ne ko yow boo nekkoon ci place ab Safwaan ndax da nga xuruj bi sallallahu alayhi wa sallam ci jabaram mi ne ko déedéet mi ne ko Safwaan la gën fuuf kon gannaaw yow doo ko def rek moom du ko def mi ne ko man mu ayuba bu ma nekkoon ci place yi day Aysata nekk jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma ko xuruñ mukk te day Aysata moo kon kon mbir mi du dëgg de yàlla nag mu ngay digal jullit ñëpp kookoo baax yàlla nag mu ngay digal jullit ñëpp ne leen lu tere ngeen ngeen mel ni ummu ayuba ak abu ayuba lansaari de wa qaalu ngeen wa haada lii if kuntu la mubinun ngay aji bidde lawlaa jaawlu tere dikkee alay ci moom bi arbaati bi arbaati shuhadaa ci ñeenti seede fa in lam yaatu ndem dikkaloon bi shuhadaa ci seede fa ulaayka ñooñu la gaay hum ñoom alkaadibuuna ñoo di way nar indallaahi fa borom inda indallaahi fa yàlla de lu tax sax bañ jiñee ndey Aysa ne dafa njaaloo lu tere ngeen indi ñeenti seede ñeenti seede taxaw dëggal loolu waaye yéen gisoo leen ñeenti seede gisoo leen dara toog rek wax ne ndey Aysa daf doon njaaloo ngeen wax wala ah léegi kon nag nday ay sata moomu ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen taqal njaalo waroon ngeen a indi ñeenti seede de Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul moo ko sos Aïcha nag moom góor ñëpp ay xarmante na ay xarmante leen góor ñëpp ndax jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñooy julli ñi ñooy yaay julli te nit ku nekk daganul ngay takk sa yaay kon nag jigéen ñëpp jabar yonent bi yëpp yaay julli ñi leen rawatina ndey Aysata radiyallahu anha xam ne am na ak ndollal ci loolu moom ndey Aysata dagal na ci moom mu wéetoo bépp góor moom dagal na ci moom moom ndey Aysata ndax li yonent bi wax ne xudu sulus diinakum an haadil umayra jàpp leen seen genn wàllu diine ci ndaw su xonq si ci ku xonq si te muy ndey Aysata kon nag kooku nga xam ne genn wàllu diine gi ci moom la nekk la budde ay góor mën nañoo dem di ko laaj na ko masala bii lu ci yonenti wax masala bee lu ci yonenti wax kon mënta ñàkk kon nag euh, ànd gi Safwaan àndoon ak ànd gi Safwaan àndoon ak ndey Aysata loolu mi ngi mel ni jigéen ju ànd ak xarmanteem de mi ngi mel ni jigéen ju ànd ak càmmiñam wala magam bu góor wala rakkam bu góor noonu rek la mel de ndey Aysata ndey julli ñëpp la waaye bàyyi ne ne la ca gën a yéeme nag mooy lii mi ne safwaan mi ñu doon jiiñ ne moo nga Aysa dañoo desoon ci àll ba bi alquran wàccee fukki aaya ak juróom benn ñëw dëggal ndey Aysa te wax ne njaaloo safwaan dafa ñëw ba mu ñëwee rafet ba ko ci keneen na ko gis nga man du ma góor sax tuñu laa mënuma mënuma àgg ci jigéen tuñu ma ne kañ moom moo doon njaaloo ndey Aysa jëkkul sax góor du yëg sax jigéen bàyyi mu ne loolu moo ci gën a yéeme de benn làppe dafa dajewoon ak benn fóote bu ñuy wax labari yi ah muy foyee lislaam ñu ne ko waaw yéen ana seen jabar yonent bu desewoon ak waaji ca àll ba tañ wax ca lañ wax lañ wax te ñu wax ca lañ ca wax ci moom mi ne ko kan mi ne ko ndayaaji mi ne ko ñaari jigéen de tuumaal nañ leen ci njaalo ñaari jigéen tuumaal nañ leen ñaari jigéen ñi tuumaal leen ci njaalo kenn ki indi doom kenn ku indiwul doom ñoom ñaar kan moo ci gën a kan moo ci gën a dëgër tuuma mi ne ki ki ki indi doom mi ne ko Aïcha ak ma jiiñ nañ leen njaalo waaye Mariam moo indi doom de fekk daf na ko eh, eh, eh, def na ko def na ko seen jabar yonentu bañ ci ñoom mi ne ko labari na ko ndax ma tontu la ci alquran wala ndax ma tontu la ci xel mi ne ko bu ma tontu ci alxuraan ndax gëwuma alxuraan waaye tontu ma ci xel mi ne ko ñaari jigéen de tuumaal nañ kenn ki indi doom kii indiwul doom ñaari jigéen nag bu ñu leen tuumaal leen njaalo kenn ki indi doom kenn ki indiwul doom eh, eh, doom kooku gën a kooku gën a ko ki indi doom mi ne ko Mariam moo indi doom de mi ne ko léegi bu ma tontu ci xel tontu ma ci alxuraan mi ne ko alxuraan moom daf leen dañal ñoom ñaar ñëpp ne ñoom ñaar kenn jaaroo ci de mi ne ko waaw loolu alxuraan wax dëgg buur ne wala laa fadlullaahi bu taxatu na yu buur aleykum ci yéen wa rahmatu ak yéen maaneem fi dunya ci àddina wala axira wala axira teg àllaaxira la masakum kon daf ne jàpp leen fii maa afattum te da ngeen xuus fii ci moom adaabu ndugal azimun ngay aji màgg de ah is ah, yàlla ah is talaqawnu jot lante bi alsinati bi alsinatikum ci làmmiñ seen wa taquluuna te ngeen wax bi afwaayikum ci gémmiñ seen maa la nga xam ne lay sa lëkkum de di ñeel leen bii maa lay sa lëkkum loo loo xam ne ñeewatu leen bii ci ma elmu xam-xam de wa si bu nawu te ngeen njort ko ah aji nan muy aji ñàkk bakkaar woote moom azimun aji mag bakkaar lay ndallaay fa yàlla de bu ne nag bu taxatoo nag ngëneel ak yàlla ak yërmandeem gim def ci yéen kon yéen ñi nekkoon ci loolu yëpp di ci wax kon yàlla dana leen buggal de du leen nangul tuub mukk te dana leen buggal yéen ñëpp dugal leen safara de mm, ba ngeen koy jot lante ngeen koy wax ku nekk di wax naan Aïcha dafa njaaloo dafa njaaloo dafa njaaloo di wax lu nekk bu taxtoon yërmande yàlla kon yéen ñëpp dana leen xalaat de yéen ko doon wax jàpp ne du bàkkaar fekk loolu bàkkaar bu màgg la fa yàlla de <clears throat> fekk bàkkaar la bu màgg ci yàlla de walaw laa sami'tumuhu lu tere ba ngeen déggee ko qultum ngeen wax ne maa yakunu yàlla la an natakallama bañ waxti bi haada ci lee subhaana subhaana kéemtaan haada li le buxtaanu nay la a buxtaanu nar la azimun ngay aji màgg de lu tax ba ngeen ko déggee ngeen wax ne lii kat yellut lii kat yellut lii mënta ne wala ngeen wax ne subhaanallah lii de nar bu màgg la waaye lii day Aysa du ko def de ya'idukumullahu dana tere leen yàlla wala dana waar leen yàlla an ta'uudu bu ngeen delloo bi li misli kemam de abadan dappet in kuntum dem nekk ngeen mu ngi nii di di way gëm de yàlla lu mel nii bu ngeen ci delluwaat de wa yubayyinu laahu dana béré leen yàlla lakum ñee leen yi ndigalam ak ay tereem de wallaahu yàlla aji xam na mu aji aji de ci jëfteefam de inna alladina naka ñi nga xam ne yuhibbuna dañuy bëgg an tashaa bu ñuy siiwal ak alfaahishata lu ñaaw ci seen làmmiñ yi fi alladina ci ñi nga xam ne amunu gëm nañu lahum ñeen ne azaabun mbugal alimun nga yaa ji wallaahu yàlla yàlla dana xam wa antum te yéen laa taalamuna xamu leen de yàlla nag ma ngay digal jullit ñi mi ne am na ñoo xam ne ñoom liñ gën a bëgg rek mooy seen bokkam jullit def lu ñaaw rek bañ bañ siiwal ko bañ wax seen làmmiñ diw def na nangam diw def na nangam diw surtout jamono jii la ëppee sax ci whatsapp yeeg facebook yeeg lu nekk ñun ñaa koy def te fekk yàlla rëbb na ñu ñi nga xam ne dañ koy def nee na yàlla dana buggal ci àddina dana leen buggal ci àllaaxira ndax wax ju bon baaxut waaye am na ñoo xam ne loolu rek lañ yàkkamti diw def lu bon rek ñi gaaw di ko siiwal di ko siiwal de ñooñu nag yàlla neneen daneen am bugal mu màgg ci àddina ci ci ci àddina te dana leen bugal ëllëg ci àllaaxira de walaw laa fadlullaahi bu taatu na yow buur aleykum ci yéen yéen borom mbamb mi yéen mbooloo mi wax lii wa rahmatu ak yéen maaneem wa anna allah naka yàlla raawufun aji ñëweti la ay jaama rahimun aji yéram lu mu leen de yaa ayuha alladina amanu e yéen gaañi gëm alquran laa tattabiu bu leen topp xudwaati cheytaani rafetali cheytaani wala xudwaati cheytaani a yooni cheytaan de a na ko ndax cheytaani ay yoonam dafa bëri de wa man yettabi ku topp na mu xudwaati cheytaani yooni cheytaani fa innahu naka moom yaamura def na digal ko bil faxshaay ci lu ñaaw wal munkar rek luñ de walaw laa fadlullaahi bu taatuna yu bor aleykum ci yéen wa ak yërmaaneem maa zakka lapti minkum ci yéen yéen mbooloo mi waxoon wax min ahadin ci kenn abadan dappet walakin allah lu fi nekk yàlla yuzakki dana mu sellal man yashaa boo soob de wallaahu yàlla samiun aji dégg na le da ngeen wax ko alimun aji xam na mu seen jubluwaay de yàlla nag wax na ni ne bu leen topp yooni seytaane bu leen topp rafetali seytaane de ndax seytaane képp ku ko topp dana la digal lu bon di la tere lu baax loolu rek lay seytaane def waaye bu leen ko def de waxaan na nag bu taxatu na yërmande yàlla ak ngëneelam kon yéen ñii ngeen xam ne yéen a mambu mambu gi muy muy Hamnatu ibnu Jahshin ak ak Mistaw ak Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul ak Hassan ibnu Saabit béykat yonent boobu ci la bokkoon yi bu taxatu na yërmaane yàlla ci loolu ak xéewalam kon yéen yi kenn du ci laab te ñëpp yàlla dana leen buggal buggal leen safara de loolu nag ñoom nag bi loolu amee nag ñoom ñi ñëw tuub ba loolu amee yàlla wàccee aaye seetal ndeyaay seen defu dara ñoom dañoo ñëw tuub ci yonent bi muy Xamnatu Xamnatu binti Jaxsin ak Xassaan moom tuub na tuub bu rafet sax gannaaw ga woy na ay woy jëmee ko ci Aysata ak mistoore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dóor leen téeméeri yar ak juróom benn fukki yar xam nga waxoon naa leen sànq ne képp koo xam ne tuumaan na ndaw su jigéen ne dafa njaalu te njaaluwut dañ la dóor ñett fukki yar waaye jabar yonent moom képp koo tuumaan juróom-ñett fukki yar lañ lay dóor moom. Mm. ndax dañ lay fële loolu de. wala ya'tali ulul fadli kooku lu ko wasal wàcc nañ ci Aboubacar Siddiq radiyallahu anhu moom dafa mistaw mi kër Aboubacar la nekkoon Aboubacar daan di ko di ko dundal ci muhaajiri nii la bokkoon waaye ba mu ñëwee Madina amutoon dara miskin la woo xam ne amul dara Aïchata oo ko këram ah, ndey Aboubacar kon oo ko këram ne ko ñëwal ma dundal mu koy dundal di ko jox lekk di ko jox mu naan di ko gàddu lépp. biñ tuumaalee ndey Aysata nag biñ tuumaalee ndey Aysata nag moom mi soo moom bokku ci Aboubacar ne kii nga xam ne maa koy jox muy lekk di ko jox muy naan mu bokk ci ñu tuumaal sama doom ji du ma ko joxati mu lekk rek du ma ko joxati mu lekk du ma ko joxati mu naan dañ naa ci moom yàlla nag wàccee laay ji ne walaa yàttali bum gañi wulul fadli borom ngëneel wulul fadli borom urus ak xaalis wulul fadli borom xam-xam xoolul fàttali borom diine xoolul fàttali borom yéwénal xoolul fàttali borom daraja loolu yëpp melooy Aboubacar la minkum ci yéen wa saati ak ak koom an yuta mu jox ak ulil qurba waroon ak jege ñaare wal masakin miskin wal muhajir way gàddaa fi sabilillahi ci yoon yàlla de Aboubacar mi nga xam ne ci koy yëpp moo ko melloo bu mu gëñ mukk ne du dundalati du dundalati miste woo ko def de koo xam ne miskin la te muhajir la ah ah ah, ah doon dox ci yoon yàlla Aboubacar bu mu gëñ loo ne wal yaafu na mu jéggal wal yasfawu na mu dëddu na na ko dégg na ko na ko na ko de te ne jéll de na ko baal de bur ne alaa tuhibbuna ndax bëggu leen an yaghfira baal laaw yàlla lakum ñeel leen wallaahu yàlla gafuurun aji baal la maay kajum rahim aji yéen Aboubacar ne am kay man bëgg naa yàlla baal ma de yàlla ne leen kanaa bëggu leen bu ngeen defee ay rëcc rëcc yéen itam ma baal leen ah kon tey baal ko de Abubakar ne ah tey man bëgg naa sama borom baal ma bëgg naa yàlla baal ma de daal di ko baa bàyyi nag ne nee na fii nag lañ xamee ne sa xale bu nekkee sa kër nga koy dundal di ko jox mu lekk di ko ordre di ko def mu def loo xam ne ah mu def loo xam ne war nañ ko cee yar bu ko yaree bu ku ci lekk ak naan lekk ak naan moom def koy jox ma yaree ko ci leneen waaye bu ko wax gannaaw maa la doon ngay lekk di naan du ma la ko joxoon te dootoo lekk fi dootoo naan fii. kenn warta yëree noonu euh, ab mu nekk gërëm wala surgaam de inna alladina naka ñi nga xam ne yarmuuna dañuy dañuy sànni njaaloo almuxsanaati way fegu ñi ci jigéen alxaafilaat ñi di way sàggan walis njaaloo euh, euh, almuminaat ñi di way gëm yàlla ak yonent lu'inu rabbeef nañ leen fi duniyaa ci àddina wala axira teg àllaaxira wala hum ñeen leen azaabun bugal azimun ngay aji màgg de ah, ñi nga ah, eh, eh, ñi nga xam ne nag dañuy fekk góor bu jigéen bu toog rek jigéen bu toog rek dafa dara nga fekk gëm na yàlla nga sànni ko ne dafa njaalo yàlla ne leen ñooñ di sànni góor yu jigéen ñi de dañoo njaalo te njaalo wuñ ñooñu yàlla dana leen buggal ca pencam yàlla de dana leen buggal buggal nu métti kon nag nañ leen ko moytu kenn bu mu sànni gis ab jigéen rek ne kii njaalo kat la wala nangam loolu kenn waru koo def de nit ku nekk daal na ittoo biram boppam waaye kay def ak ku def loolu yàlla xam na ko yàlla moo gën a xam ay jaamam yàlla moo gën a xam ay jaamam de suturaal na ba defuñ wala ba waxul ba ba kenn yow bu leen gisi suturaal bu leen jiiñ ne dañoo njaalo wala nangam ak nangam de xas góor bu jigéen ne dafa njaalo loolu dafay ta njaalo dafa moo moo gën a bon wax bon boo yëkkati wax ko sa morom julli dafay moo gën a bon sax njaalo moo gën a bon njaalo moo gën a ëppee na daraja njaalo juróom-ñett fukk juróom-ñett fukki daraja kon na képp kuy képp kuy wax wax ju bon na ko moytu dugg ci làmminam de ndax njaalo lu bon bon bon bon wax ju bon moo ko gën a bon yow ma tashhadu bés ba dana seede a alayhim waral leen alsinatuhum alsinatum ay làmmin seen waaye jiwam ak ci loxo seen waar jiwam ak ci tànk seen bi ma kaanu te dañ ñëpp yaa mu doon jëf pencam yàlla nag ñëpp képp koo xam ne def na bakkaar moo xam nga def ko nga wax ko muy wax ju bon nga wax ko wala nga def ko sa loxo wala sa tànk lépp dana ko seede de waaye def rek dana ko seede moo xam sa loxo ko def wala sa bët wala sa nopp wala say tànk lépp loo mën a def ci lu ñaaw rek sallallahu alayhi wa ko seede wala sa loxo wala sa tànk de noonu nag xam ne ñu bon ñi noonu la ñuy seedee seen cëri di seede lu bon noonu la ñu baax ñi saalixiina yi noonu la leen seen i loxo yi di seede lee loxo naan maa téewoon kaamil bi bët naan maa ko doon xool maa doon xaal kaamil eh, tànk naan maa doon dox di dem ci zikkar maa doon dox di dem ci jumaa di julli maa doon dox di dem ci nangam loolu yëpp ñoom itam daneen seede loolu de yow may diñ besee keroog yow may sin te dëkk yoo fi mu laaw dana matal yàlla diinu moom ak fay seen de alxaq bay dëgg de wa yàlla mu ne dana xam ah, dana xam an allah nag yàlla woo moom alxaq mooy dëgg al mumini al mubin ngay aji bidde alxabisaatu jigéen ñi di way bon lil xabisiina ñeel na góor ñu bon ña de góor jigéen ju bon moom du am benn jëkkër lu jëkkër ju bon rek foo fekk jigéen ju bon jigéen ju góor gu bon rek mooy nekk jëkkëram de wala alxabisaatu wax ji ay aji bon lil xabisina ñeel la nit ñu bon ña wax ju bon du génnee ci kenn loolu ci làmmiñu góor ku bon rek mooy wax lu bon foo fekk ku bon lu bon rek lay wax ci làmmiñam de wal xabisa wal xabisuuna ñu bon ña lil xabisaati ñeel la jigéen ñu bon ña de góor ñu bon ña nag ñoom foo leen fekk jabar ju bon rek la ñuy am de jabar ju bon rek la ñuy am de kon Aïchata moom dañ ne ci loolu de ndax moom jëkkëram jëkkëram ju baax la jëkkër ju baax de kon moom ku baax la de wa tayibaatu jigéen ñi di way tee li tayibiina ñeel la góor ñu teeye de foo fekk euh, baax rek góor baax moom lay am de kon day Aïchata mii ku ki ko takk ku baax la kon moom ku baax la de wa euh, wa tayibuuna góor ñi di li tayibaati ñeel la euh, jigéen ñi di de ni ki nga xam ne tamit wax ju baax wax ju baax ci làmmiñu góor gu baax rek lay génne rek foo fekk wax ju baax rek ku baax moo koy génne rek ulaa'ika ñu ñu ne gaa yi ñun ñun tuumaal ni ki Aysa ak Safwaan mu barraw ni ñun dañal lañu mimmaa yaquluuna te la ah la ngeen wax ko de lahum ñeene leen maxfiratun baax wa rizqun ak wërsëg kariimun ngay aji tedd de ñii nag ngeen tuumaal lii muy ndey Aysata ak Safwaan ñooñu ñu day leen ci lii de li ngi leen seede yëpp dara amul ci dem nday Aysatu nag radiyallahu anha daf daan puukarewo ay yëf daf daan wax ne sama borom bind na ma may ku tee yàlla ko wax alquran ko wax digal na ma mbaax digal na ma njëggal te jox na ma wërsëg wu tedd de daf daan puukarewo ay mbir ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan wax ne mboolem jabar yonent bi seen nday yeeg seen bàyyi ñoo leen maye waaye man yàlla ma maye ca kaw asamaan de te njiit la moo doon Jibril kooku mooy ndey Aïchata radiyallahu anha de kon moom duñ ko tuumaal nii dañ nga ci de te ndey Aïchata radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko wax yi daan mu nekk ci jabar ci yeneen jabaram yi dafay beru waaye ndey Aïchata moom dafay sàngoo moom benn mba benn mbàjj benn mbàjj lay sàngoo mu Jibril wàcc ñëw wàccee laay jële ñëw wàccee ñëw wax yi ci kawam de ndey Aïchata radiyallahu anha daf doon daan na man rek la yonent bi sallallahu alayhi wa fekk ma ma nekk jànq man rek la ko yonent bi def ci mboolem jabaram de man la yonent bi sallallahu alayhi wa ah ah sama sama sama sama lor mooy samay taflit moom mujj dugg ci gémmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de te bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy génn àddina ci sama kaw la génnee àddina de ci diggante samay lupp ak samay ween ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àddina de kon moom moom day Aysatu moom nga xam ne jabar yonent bi yëpp lu may Xadijatu ndey Aysatu moo ci gën de ndey Aysatu moomu jabar ju baax la jigéen ju baax la de moo tax keroog ba muy génn àddina ba mu nekkee ci lali deem ne nar a génn àddina Ibnu Abbas ñëw fekk ko fu mu tëdd ma ngi koy bégal de ne ko bégal yow yaa ngi nga xam ne tee nga alquran ko wax yàlla dëhal dëhal na la aljana yàlla dëhal na la ak mbaa yàlla daan na la wërsëg te yow rek yaay ki nga xam ne yaa doon sàngoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn mbàjji wóor yi di wàcc de yow yaay ki nga xam ne yow yaay ki nga xam ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa kaw ci sa kaw ci la génnee àddina de te ba génnee àddina yi sa néeg lañ ko suul de ndey ay sa daal di kontaan de yaa ayyuha alladina amanu yéen yéen gaa ñi gëm alquran laa tadxulu bu leen dugg buyuutan ne ak xayra buyuutikum lu ay néeg seen hatta tastahisu lu dul ngeen diisoo wa tusallimu te ngeen nuyu ala aliyaati ñu ñoom de zalikum loolu xayrun moo gën lakum ñeel leen laallakum daa yéen tazakkaruna ngeen ragal yàlla de yàlla nag ma ngay digal lii lu ko wasal wàcc na bu njëkk danga daan def rek ku bëgg dugg ne jàmb rek dugg doo tàggoo doo fëgg doo def dara da ngay diisu ah, doo diisu doo def dara benn jigéen nag ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko man yonent bi daal ah, eh, eh, eh, ñi daal da ngay toog rek diis ku ñëw dugg néeg ci waxtu woo xam ne koo kenn fekk la sa néeg mi ngi fekk nga rafle bëggul kenn nga dugg waaye ñu leen neex rek kum neex rek dugg néeg jàmm du la neexee daal di wàccee laaya ji ne ee eh, yéen gaa yi gëm bu leen dugg néeg jàmbur mukk lu dul dangeen a fëgg njëkk bu ngeen fëggee nag bu ngeen fëggee ba pare ngeen soo ko dugg de seen néeg nag bu ngeen dugg mën ngeen a dugg waaye néeg jàmbur yi moom ne fëgg de loolu moo gën ci de fa in lam tajidu ndam fekk leen fiyaa ci moom ahadan kenn falaa tadxuluhaa bu leen xarab de attaa yuzana ba ta digal lakum ñeel leen wakiila ne wax nañ lahum de lakum ñeel leen irji'u dellu leen farji'u dellu leen de woo moom askaa moo gën a laab lakum ñeel leen de wallaahu yàlla alimul aji xam na mu bimaa taamunoon ci lépp lu ngeen jëf de yàlla nag wax na ne bu bu ngeen fa bu ngeen fa fekkee bu ngeen fa ngeen ne yéen jullit ñi fekku leen fa kenn bu leen dugg de gannaaw joxu leen ndigal bu leen dugg buñ leen joxee ndigal nag ne leen dugg leen dugg leen su fekkee ne nag da ngaa fëgg borom néeg bi ne la déedéet bul dugg sama néeg dellul mi ne dellul de ndax xamoo lu tax ne la dellul kon dellul bul dugg néegam de ci jamonoy Seydina Omar ibnul Xattaab Omar daf daan def bu guddi jotaan muy wër muy wër Medina seet nit ñi ci liñ ne mu koy wër benn bés nag muy wër di wër di wër ba fekk ba yundu benn kër rek gis benn mag moo xam ne mag ci këram ma ngay naan sàngara ay jéebalam ñoo koy tëggal ma ngay fecc fecc mu neex ah Omar daal tëb tàppaar ba ñëw rek fekk ko fu mu fu mu ne ko yaa ñàkk jom yow mu mel ni ngay julli ci dëkkam yonent bi ngay def lu mel nii ci dëkkam yonent bi di ko def yow yaa bon mi ne ko Omar may ma ma wax may ma ma wax mi ne ko yow am nga loo wax mi ne ko may ma ma wax may ma ma wax Omar ne ko yow am nga loo mi ne ko waaw mi ne ko waxal mi ne ko man mooy naa diga man mooy naa yàlla benn yoon waaye yow mooy nga yàlla ñetti yoon mi ne wax na wax na wala te jassasu bu leen lu ñuti nit ñi te yow yaa ngi di ma lu ñuti yàlla wax ne bu ngeen dugg ci kër jàmbur na ne ne ne ngeen diisoo yaa ngi nii diisoo woo da ngaa toog rek dugg sama kër yàlla wax ne bu ngeen bu bu bu ngeen dugg kër jàmbur na ngeen jaar ci bunt bi jaaroo ci bunt da ngaa tëb miir yow man mooy naa yàlla la benn yoon waaye yow mooy nga yàlla ñetti yoon dem awoon nag daal di wër daal gi di daw di dóor boppam bi di ko dóor ci suuf naan woy Omar woy Omar yow daal ndeke ñëpp ñoo la gën a xam yow ndeke ku réer nga woy Omar toskere ñeel la Omar toskere ñeel la Omar ñëpp a xam de allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin yàlla mu ko tàmbali ba ak si yàlla na ko àggaleeg jàmm te bañ ci dem doog yàlla yàlla mu ko xam dëgg-dëgg yàlla nañu ko xamal yaatal barke alquran yàlla ka wasal ak ki ñu ko wasal ci moom di tànn wasal ko ci moom yàlla barke diine l'islam barke tariqa Cheikh Ahmed Tidiane barke Maam Alhaaji Abdoulaye barke Baye allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim